ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد asalaamaaleykum mbokk yi teel alxames juróom benni fan ci weeru diggu tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ci atum ñaari junni ak nit ak benn juróom-benni fan bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la manees na cee watu wala daloo ci wala takk ci ab sëy wala yeggale ko ca wala sanc ci kër wala tàmbali ca dara ak yu mel ne ñoom bu dee bisub alxamis bi liñ ci gën a taamu mooy ko ca daloo ñaanuk bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mbugalum bàmmeel ak mbugalum sawara ak ci fitnay dund ak dee ak ci fitnay masiixi dajjal allahumma inni audu bika min adabi alqabr wa min adabi annaar wa min fitnati almahya walmamat wa min fitnati almasiixi dajjal xadiisu bis bi jëlee nañ ci abi hurayra yàlla na ko yàlla gërëm mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nekkoon na di wax ñaan gii allahuma inni audu bika min adabi alqabr wa min adabi annaar wa min fitnati almahya walmamat wa min fitnati almasihi dajjal xadis bi buxaari yi moo ko nettali man